ذلك من غير ضيق ولا حرج ولا اعتذار عن الناس ولا كثرة المجاهدة xam nga loolu la yonent bi waxoon Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane moom tamit yar si jaam ak yàlla yi baa gis ñuy stamp Cheikh Tidiane bi mu ñëwee def ne kullu zi xirfatin fi xirfatihi kullu zi suxlin fi suxlihi la nabtagi da'wa wala almaziyata wala alxususiya yaakaar naa fii sëriñ bi sax dina ci dugg parce que lii renaissance divine la dafa am benn concept wala benn philosophie bu ñuy incarné ñu doog a xam ne lii la Cheikh Tidiane doon wax. mu dem ba ci digg bi bàyyi mu ne li gën a am solo tey mu ne laa na atamit bi xaqil awa idi attention ñun taalibey bàyyi ba mu daj bàyyi ñes nee na du ñu sukkandiku ci ay karaama pour kenn gëm ñu du ñu sukkandiku ci karaama pour gëm kenn te adduna bi yëpp tey wala yàlla yi xew yi yëpp karaama lañ doon moo tax xew yi ne ñi fi bëgg a des yëpp nañ bàyyi karaama képp koo xamante ne karaama nga am da nga boo ko tàmbalee di nga xew yi loolu du sunu mbir bàyyi teel naa won gaa yi ne la laa na tamit du bi xaqil awa sukkandiku ca xar baax pour gëm kenn duñ ci sukkandiku pour lan kenn gëm ñu kon ñaar yaa ngi yaakaar naa bu doon karaama xam nga ñi ay ceddo la boo demee Saalum ba léegi sunu maam yi dañuy taal safara taal néegu yax ba mu tàkk ñu toog ci biir ba mu fay ñu génn seen kërkaal bi mu sol du lakk loolu karaama yonent yàlla Ibrahima la woon ak keneen ak keneen bàyyi ñis ñëw ne attention loolu du sunu mbir ñu ne ko bàyyi lan mooy sunu mbir mu ne kenn ku ne na garder métier kenn ku ne occupé occupation du ñu déranger kenn laa nekk dun ara aw hadidu montagne mënut a kawee ba du ma jéggi gars yi jëriñ leen xur mun a xuus xóot ba du ma xuus fekki gars yi kon nañ jël suñu temps ndax karaama Cheikh Ibrahima Niass bi dina fekk ku ne fa mu nekk jox la lim lay jox waaye lim ñu sant mu ne suñ karaama du dara karaamatuna fi kama anna karamata gayrina fil afati mu ne karaama ñun ashabul faydati tijaaniya mu ne mooy sunu xol yi mel ni ku dul ay karaamam ci jaww ji la koy wane Baye Niass mu ne taalibe Baye karaamam mooy xolam nana lay feeñee mu ne bés bu ne la xamoon ay at bi dellusiwaatee Cheikh Abdou Ndaw moom xamoon rek lay fekkaat te wallahi yokku ndax képp ku téye lazim kese te fonk ko heure boo yeewoo sa tey gën sa démb mais bu dee ay at dañuy fekk Cheikh Abdou Ndaw ma nga xamoon 85 boo ñëwee dañ koy fekk moom ci 2017 mu doon ka mu doon loolu mooy karaama Cheikh Ibrahima Niass. Baye kenn du ko gëj a namm ko parce que Baye ba nga xamoon 80 wala wala 1900 moo ngay mu doon 75. kon doon wax ne ñun ñëpp ay am na ndaw bu ànd xolom jeunesse dëgg-dëgg kenn du ci génnee dégg nga Cheikh Baye Mamadou bugg na taalibe yi oyof na dégg nga te jikko Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahima Niass la amoon dégg nga fu taalibe Baye nekk dana la fa fekk mel ni Cheikh Abdou Ndaw mi nga xamante ne lu Baye am uuf na ko xamewul koy kenn lu Baye am uuf na ko ñun xale yi wala ñun bopp ñi doog a jóg dañu soxla référence yi ndax nit moo soxla ku ne ci kanam naan ko if al wala man de ba pencam yàlla bëgg naa ku may wax naan if al wala taf al if al wala taf al man dama ko soxla sama dund kon bu maa guddal di wax ne rek ñun ñëpp tey nañu bàyyi xel ci projet Serigne bii nga ne euh, projet samp xam-xam la ñu defee ko Kossy gis nga Serigne bi Kossy nit ñi dañ ko war di bàyyi xel dëkk ba nit ñi dañ ci war di ndax la fa xewoon rek ndax rek ñu fàttali ko la fa xewoon fa la bàyyi defee li mu def yëpp kon ñun ñëpp nañu bàyyi waat Cheikh Ibrahima Niass ba ma demee Fass damaa dugg rek sama xel dem ci li dajoon bàyyi bàyyi ne na dafa dugg gëlëm xaw ma lu may ñaan wallahi la ma fa nekk zihaban wa iyaban ñaanu ma fa dara damay ñëw ren ko sëriñ bi waajee may yebal te moo ñu wax ne lu mu dee dee nañ ñëw benn yoon ñëw naa léegi nag lépp lu tax mu yebal man de ngi ci buntam te moo a indi aw benn soxla bu fa ñaan xanaa kay xaatil taalibe yi seen tur yeeg seen melo yi fàttali leen Cheikhu Tidiane bàyyi bi mu duggee toog ak Cheikh Tidiane ba mu jeex bi mu génnee damaa bëgg taalibe bàyyi yëpp mel noonu isal kiram isama aysaru zakaru man kaana yaxlifuhum fi mantinil xasmi bàyyi nee na bi mu duggee ci Cheikh Tidiane ziyaara ko ba pare génn ci biti nee na dafa am benn xaatira bu ko indil benn baytu wali yàlla mu ne isal kiraamu ñu baax ñi ñu tedd ñi noobu li isama ay bu ñu demee ba génn ci jafe-jafe zakaru dañuy fàttaliku maakaana yalifuhum fi manjilil xasini ka leen fekkoon ci këru tartar buñ nekkee ci këru sedd ak yaatu ak bastu faw ñu fàttali ko leen fekkoon ci xat-xat yooyu kon ñun ñëpp war nañu delluwaat ci loolu am reconnaissance parce que jikkoy walu yàlla la parce que walu yàlla du fàtte jikkoy walu yàlla du fàtte xaw ma na lañ koy waxee du du du du fàtte xaw du fëkk jëf xaw a na la ko olof di waxee ah voilà Baye Niass mu ne man lu rafet du ma ko fayee fàtte kon ñun ñëpp nañu xam ne li ñu doon dafa am ku mu tax bés bu nekk nañuy bàyyi suñu xel ci